Fallou Ngom. waaw maam. waaw. Ngom waay. yow foo nekkoon sax. maa ngi woon ci biir di. da doon def lan da nga doon nelaw. dama doon sol yére. ah da nga doon sol yére. Ngom waay yeewu nga. Ah, kay Ngom yeewooguma. yeewoogo. yow nga yeewu ba jël sa basan lal ci ëtt bi toog nii nga ne yow yeewoo ko. waaw nga gis ma toog nii nga naa ma ndax yeewu nga xam nga loolu laaj boo xam la. ah pour man ah. sa da tëdd la. Ah, eh Bintu te wax naa la bul def dara jël bàyyi may def lépp ah. non dara baal rek baal non lu mu bëriwul bëriwul nee yow yow il ne travaille rien de tout. c'est moi qui travaille maaleykum salaam na nga def. ba yaa ngi si jàmm. alhamdulilah macha allah damay laaj suma benn taalibe bu ñuy wax Papa Ngagne Ndiaye. Papa Ngagne Ndiaye suma taalibe man nag ku baax nga baal ma de waaye fii sama kër la waaye tuxu seegu ma fi dama ko doon xool si nii rek waaw damay waajet ñëw incha allah dafa ne ma wax ku waar waxare bii la côté bii la dëkk waaw waaw xaw ma ko ah, euh, kii euh, defal sara na defal sara soow soow ngay def ak ak ñetti nen dégg nga defal ko sa kër gi maa xam nga ne yow doo góor benn jabar man mi yow. gis naa ni ngay defal Fallou si biir kër gi. bu ma tuddal kooku. dara neexuma si man seen doomu nijaay laa. Mhm. am naa droit sëy ak yéen ñaan ñëpp. am nga droit sëy ak man ma rek déglu ma mais yéen ñaan ñëpp xaw ma kan laa ci seen. sëy la ak man. déglu ma yéen ambition nga am ci man. yow ambition la am si yow. Hmm. defaral la entertain boo xamante ne li xale yi jigéen naa entertain dama la koy defaral un mois entertain nee iPhone 14 laa lay jëndal Pro ay réew yu garaaw ndax yow nee naa la yow géej ah bu doon ndox man dama ciy daw ay kilo kilo kilo kilomètre. yow géej bu dul ndox lan la. doon boisson. te da ngay yomb. maar day taali wala maar day taali ah baax yàlla na ma yàlla mos sa kanam gi. di am nen bul wax loolu man de jàmm rek laa la bëgg ndax gis nga ni ma ak yii mu rafet rek looloo tax ma waxal la lii. mais fajarteel gi nga ñëw ci sama kaw ni mu naa ma ay dee ki yoom ak yu ma xamul rek li ma gis rek laa wax bi nga baal ma nag. loo yow looy loo dugg rek mu yàqu sa bari wax. moo la ko ay or yu bëri. ay takkaay defaral la xoolal sanoo dë. Oh. yow dama ñëw fii di la jëlal paar sama kanam mu maam. mais yow dangaa wax. kan moo wax ma yow laa bëgg. waaw si yow am nga fit de te osé. regarde-moi dans les yeux yow ku de seul. man yàlla suñu borom. waaw rek laa gëm. waaye yàlla am na ñu mu dénk te am na ñu mu jox kon doo topp nit. xaay mais yow sax yow yow kan nga ey kay min woni galaaj so mbi mamadou pend alpha man ngam jam pend jam aaruma jam su may maam lépp ci kam-kam dama leen ko doon ci kam-kam man du man yàlla kenn manul yàlla rek man bi nga waxee loolu sama yaram dafa daw waaye xam naa ne yàlla am na lu mu dénkaan dénk na ma dara sama taaliba boobu may seet yàlla defal na ko loo xam ne bii defe naa ne yàllaay joxe de waaye ma sama sama loxo la jaar. waaye gëm nga lu am yàlla la. lépp yàlla la. man lépp dinañ mën a waxtaan ma sama yére yi mënoo ko nga jox ma ko ma weri ko sama bopp. li ngeen nekkee ci kër gi dara neexuma ci. te yàgg ma sëy see kenn. la. <laughs> déggoo li ma la. ma ñaar code code bi fi laa koy ba boo siy toog man. yow na kaay taxawal. eh tagal sama eh. baal ma baal ma baal ma ma yóbbu xaaral taxawal nii. xaaral eh taxawal ak yow. yow wax dafa jot. rëcc na ma eh déglu ma fi. ma tax nga yabaate. maa yow sëyu ma ak yow tey sëyu ma ak yow suba bu la yeboo nga def loolu sa bopp bi booy dee nga dee booy xaru nga xaru lu dégg naa si kër gi léegi da ngay nekk di xaru naa ndax man. deewal foog yow la ko doo see man doo see keneen. yow sa xaw wax ak yow mu ngi bëgg a jot sa ñaari bakkan yi nga bën baal ma dégg nga eh, reena ah. <laughs> kii wér na. jël noonu ak defar numéro téléphone am suba ci waxtu bi ndax dafa am ku may seet te daf ma yàkkaam bi ci waxtu bi soo ma woowee ma fekk li fii ñu waxtaan incha allah ma defal li ma lay defal. ku baax te nga maa dimbali rek bu ko defee ñu. tey dama yàkkamte dama nekk si ay tànk te kooku kilifa la moom it loolu rek tak bàyyil ma wër ko rek gis ko ndax moom bi mu toog see fii yàggul. ñëw guma dam am lu ma ko war a defal fi sàncam bi moom it looloo tax suba incha rab bi soo mu saakam noddi téléphone tan bu soob yàlla dinaa fi ñëw ma defal la li ma la war a defal ndax loolu du def parak parak sànc bu bees ay taak ay kii te yow li ñu war a defal sa yaram dinañ ko defal incha allahu rabbi jërëjëf indi nde min galaaj som bii tey suba jàmm incha allah waaw. Eh, kay kay kay kay kay bàyyi fi sa numéro téléphone. ok. Eh, Ja, ubbit, ubbit. Eke. Eke, Suba, bring more wobi sobe. dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meek ci àdduna si application Sénégal set indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saa si ak ci ité bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal 7 muy application booy téléchargé rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleek coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement.